chéri wannan momiyel ay dëgg sama lem waaye sama tàndarama eh sama juk juk juk sama bukut bukut mood chéri saa soo ma woy sama tur rek tiit parce que damay xam ni la nga ànd dafa mel na ah am jabari commandant gendarmerie moom <laughs> métti na de ah <laughs> waaye bari vingt cinq ans de mariage est-ce que dama la mës a de respect est-ce que dama mës a wàcc ci li ma war ak yow jigéen jigéen mais yow loolu dara man liggéey ba rek moom ma moo ma kii moo ma sonal ah yow ñaar fukki at ak juróom ñu sëy mais yow moment yu ndaw yi ma ne rek may ma fii trois mois rek ma réglé sama problème bi nii rek ah loolu rek dafa jël ngay nekk fii di déggoo comme ça. <laughs> ñetti weer jege woo xamoo lu ma war du ca néeg ba du ca lal ba du dara ñaar fukki at ak juróom ñu ngi nii di sëy ah loolu xanaa mën ngaa doyal loolu <laughs> noppaliku nga wax. yow nag. damaa seetlu depuis ba ma la lijjantee sa contrat bi ba léegi ak monsieur le ministre talatoo dara du dara dara dara looy lijjanti ci kër gi yow daal na nga yor rek sa bopp rek wax nga dëgg temps yi damaa xaw a xat liggéey bi mu ma xaw jàpp muy fii trois mois ñetti weer keese xoolal affaire bi dina non ba fàtte woon diggoon nga ma fi cent mille francs loolu moom dëgg la waaye fii may wax ak yow nii benn dërëm nekkul sama poche yow régler affaire rek après naa ko xaalis bi ma lay laaj pour kër gi la te damaa bëgg nga teg ko fii. <laughs> yow yow essence bi ma defoon sama oto bi moom lay dawee nii ba léegi xamal man yoruma xaalis ah yow gérer ko comme li ma wax rek wala gérer ko après tu xoolal fii trois mois rek yëpp sotti yow tam waa nii nii bëgg naa ko. <laughs> Hmm. vingt quatre ans ma di ko liggéey. di def nag ci kër gi amul dara lu ma bàyyi muy traîner tâche bu ma war a def rek def naa ko ma bég ci lool waaw ndax yaa ko waroon def te defoo ko waaye mel na ni yaa ko def ndax sagal sagal naa ci sama bopp sagal la ci ma lay laaj ñetti weer yi nga liggéey ana xaalis bi lan nga ci def fan nga ko dugal. wàllu cent vingt franc yi may laaj rek moo tax ngay wax nii ah xool man yooyu dooma ci yeb de da ngay xaar rek après naa ñu dem li jënd ko ne danga ne yoroo xaalis mais foo jëm. waaye xam nga rek ak ministre di la woo fi ay réunion di la woo fi ay politique ah di la woo fii xam nga du nekk moo la nga war a dem dajale jigéen ñi fii góor ñi fii ak membre yu parti bi xam nga loolu loolu tax ma xam ne tey moom dinaa am journée bu dëgg dëgg dëgg solo dëgg ak ministre bi ñii dañuy sonal waaye dañ lay sonal ah, dañ lay sonal trop ah. ngay ñëw nekk ko journée bi yëpp fa ngay nekk di wax membre yi ñëw kenn ku nekk ñëw toog ah xam nga parti bi dafa bëri ay et puis itam problème yi nekk temps loolu moo tax doo am temps sax pour toog ak sa njaboot waxtaan lii la rek mais du leneen ah. sama téléphone baa ngi sonné. bu demee moom mayam bi sama ren xool sama sukk vanille chutone et eh, namm naa la de ça va et la journée namm ministre. ah waaw ministre waaw. man la sa reenu xol man la man maay wax ak yow wala yow soxna si moom moo nekk sa wet. son excellence <laughs> ah na def waay. man maa ngi nii hôtel toog nii di la xaar yow rek lay xaar defal sama robe bu baax. waaye moom moom doole. Eh ah le pouvoir moom appartient nga indaale trois cent mille bi ñu ma waxoon. mais contrat moom mi ngi nii sama poche. xam nga ne sa jabar ji commandant la te man bëgguma ko dagg sama bopp. mais daal xoolal nañ xam daal exactement kenn ku ne fan <laughs> ni xamoo da la fiy xaar man rek si xale lépp laa préparé bu jëree lëmbal damay lëmbal lu mu laaj dama ko koy jox yow tamit xam nga fecc bi naan suus suus sax tey dama koy def yow daa ma ne xamoo fii li la fiy xaar. tey suma feree si yow dina mel ni bu ngóor njaayee mbaam la nopp yi du dem. waaw monsieur le ministre oui waaw noonu la c'est donnant donnant da di jox ñoom ñu jox la parce que noonu rek nga leen mën a amee en plus xam nga ñoom comme dañoo am mbooloo te kenn ku nekk day ñëw ak ni mu lay wax ni mu lay expliquer noonu rek nga mën a def. bàyyi naa la ko noonu soo ñëwee giliseel rek ànd ak moom maa ngi nii jaaxaan ci lal bi di la xaar. xam naa maa ngi ñëw waaye kon yow maa ngi ñëw de. chéri kilifa kenn du ko xaar loo jógal daw tam dem te ñëw. waaye xaaral ma doon waaye xam naa du ma guddee. Ah, ok. Coco. su fekkee sa dund téye damaa bëgg nga avancer te bëgguma dégg bëgg yi. comment son excellence xam nga lu ma bëgg nga dugg ci douche bi. comment c'est dara. bul génn tànk joxuma la or yaa ngi gaaw xale bu ndaw xaar xam nga sama jabar dafa muus waaye dina xam ne maa ëpp xel saa su dama koy wax ne ko man damaa soxla sama bopp yow da xool ban góor am jabar ah mooy dee tey rek moo ci mujj moo koy laaj boppam xamul ma wax nee na il may ko ñetti weer waaye gën góor bu mooy nangu loolu man ah damaa dox mais looloo tax na ñu mel ni ñun ñuy wër ay patate chaude yu mel ne yow nga ñu mën cee loolu ko ah <laughs> tey rek ngay dégg tey rek rek rek ngay dégg laa wax. bu ko defee dama lay ngelaw dama lay ngelaw yow dama lay ngelaw parce que xam naa ni li nga war a bëgg ngelaw. ah waaw. waaw waa Cheikh doo ñu xoolee ma lay fekkal ah man jigéen bu ma la mën laa bëgg te yow defe naa ne ah da nga mën lënd ah waaye yow li ma lay fekkee dafa laa néewul ah ah Cheikh ah fekk li ma lay fekkal li nga xool waaye du nga du nga du Continue, Sophie. Continue. Percebe? suuf si yëpp lépp loo wax rek wala léegi-léegi. soxna si man du ma si dara man mënu ma lëmbal de mënu ma lëmbal man du ma si dara mënu maa fecc. ah comme ni nga mënoo fecc. waaw ah, waaw soxna si xaaral mën naa tuuti rek mën naa tuuti rek xaaral tuuti rek xaaral tuuti rek. aywa yow nag yow nga ubbi say bët taxoon acca suus suus et eh, tourner laa wax suus suus suus suus suus. Aja lembel, lembel, renang nih bang, renang nih bang, renang nih bang, renang nih bang, bang, gitu bang, gitu bang, tak, tak, ada gitu, tak, tak. Beli nggak kok? Beli mulai tunda. Siapa? Siapa yang muda? soxna si man bu ma si dara lépp moom la man xaw ma woon na sax moom dafa am jabar. ci lii mën nañu ko réglé ma la ñu nga naka bàyyi ci mu dem. ba eh yow noo def ba agsi fii gis nga bi may wax ak yow ministre bi laa doon waxal c'est que dama ñëw fii ci parage bi gis nga gis naa ma ne xaar ma jaar xool sama benn copain bu fi nekk loolu moo tax rek nga ñëw fekk moom mais ministre bi moom laa doon waxal man est que jaawul ma appartement ah. <laughs> lan moo tax loolu tamit méttee gérer rek boo yoree. boo yoree ñu aayoo neen boo yorulee yaay raw sax bi tax ci seen nit gi hmm. waaye baax sheri wannan momiyal ay dëggal sama lëmbaay sama tàndarama eh sama cug sama bukut bukut muut ngay ñëw ngay ñëw nekk fa journée bi yëpp fa ngay nekk di wax membre yi ñëw kenn ku nekk ñëw toog ah xam nga dafa bëri ay et puis itam problème yi nekk temps loolu moo tax doo am temps sax pour toog ak sa njaboot waxtaan lii la rek mais du leneen sama téléphone baa ngi sonné bu demee moom ma yàlla allo. sama leen xool. sama sukk fan yi su ne. eh nam naa la de. ça va. monsieur ministre. waaw. ministre. waaw. man la sa leen xool. man la man maay wax ak yow. wala yow moom moo nekk sa wet mbaa di nga indaale trois cent mille yi moo waxoon. mais moom mi ngi nii sama poche. kon yow maa ngi ñëw de. chéri kilifa kenn du ko xaar loo jógal daw tam dem te ñëw. waaye xam naa du ma guddee. ok.

ah man nan lay amee jabar ju taar ju rafet ju mel ni kii ah sama soxna si muy wër rek man di lay nii rek ah. ma ne nga jox ma contrat ci sa poche. contrat. xam nga loolu lay yëgal bul ma pousser à de contrat bi laa bëgg nga teg kii sama loxo. xaw ma ban contrat waaye bii moom ñàkk ngeen ko monsieur le ministre bàyyi naa la ak sa collègue. monsieur bu ko gisee loolu man dinaa la expliquer mais chef chef turu léegi gis nga li nga def. yow kan nga comme moom dem na ñu àndal li ñoo dëkk. waaye moom am nga jot. ci la moom. eh wuyu li ñu fi andi woon ko def moom dem na ñëwal. yéegali mais yow est-ce que ça va. mais nañ dem àggal li ñu fi andi woon. mais yow est-ce que ça va. eh waaw wuyu yow da ngeen di nga mën a comme nag yow yaa ngi demoon chambre d'hôtel waa léegi kan mooy fay waa waa yéen a yaa